waaw maa yaay bi euh, euh, jaale li ñu bokk. Euh, naka fi mu yegg fi man yàlla rek laa ko seere yàlla ak sëñ Fallou rek laa ko seere musta sàngal sama xol benn yoon bi may xele bu tuuti ba nii mu wujjee boromam sama xol sedd rek ci la daa daw ba barki bii ca guddi. reer bu am maanaa la ma indi di ko def nag lu wërsëg bi ko yàlla jox mu bokkoog man bokkoog ki magam maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla ba mu dara lu ko ragal yal na ko yàlla xare àjjana njaboot gi mu fi bàyyi yàlla ci sama borom bi yàlla teg lox kontaan sama xol sedd na ci moom ndox musuma teg wenn naqar musuma teg yenn gàcc xanaa am jom nangoo liggéey seet ki am jom mu ànd moom ku ne ci po àndut ak yow na ko sëñ Fallou teeru barke borom Touba jërë ngeen jëf. ban kàddu la démb ca ca yor-yor bi jaar na ci kër gi nuyoo rakkam ju ndaw ji fi bàyyi doom mu daal di jël ga doom ji gàddu daal di fóon fi fóon fi daal dem ma topp ko ba ci wata bi bi ma topp ma ko toppee ba ci wata bi mu daal may wan ginnaaw nekk booba yàlla dogal na li mu dogal. sunu gisee jeex na waaye na ko sama borom baal la teeru te ko xeral ko àjjana